dañuy am ay problème Ils fi sango dañuy am ay problème parce que dañuy fièvre ils ont des problèmes de peau malgré la pollution a été déclarée ils nous ont mis des panneaux mais ça ne suffit pas aux populations population bi dañuy ci lañuy sango ba parce que respecté les normes. yoy ba pare li ma ci gëna canal yi versé y a une énorme de canal canal yi dañoo barrés man j'ai constaté plus de 8 canaux canal est-ce que euh, te yooyu yokku wala yi fi nekkoo ñoo fi nekk ba léegi. non dafa am yu ci dolleeku am na yu bees yu ci dolleeku canal Dalifort bi nga xam ne day versé ci la baie de Hann am na beneen bu ci dool kanaal 6 bi ñuy wax tamit mi ngi fi am na beneen boo xam ni ça vient de la marine française fii camp marine française bi moom boobu ba léegi mi ngi fi moom it canal am fii lay versé en armement mais nee nañ comme gis naa kii yi fa nekk quoi réserve yi fa nekk nga xam ne sur terrain. Le, la ñuy la ñuy denc ay armement yoo xam ci ndox la ñuy après ndox moom mooy verse bi ndox moom mooy seral armes yi foofu loolu xam nga kon doy na waar loolu loolu moom xam nga ne lu dangereux la vis-à-vis des des êtres humains léegi nag man ma bëgg population bi def ci benn jàngat parce que nit ñi ni ñuy feebare doy na man mii xam ci dara parce que la majeure partie des populations fii dañ me interpellé surtout maa ñiy liggéey ci booru géej gi comme man ci géej gi laay en tant que mareyeur dama ci am ay cas yu bëre ñiy débarqué gaal yi pirogue yeeg yooyu yëpp dañuy dem ba si yàgg am ay feebaru peau il suffit gis nga chaque jour ma gàddu kenn yóbbu ci hôpital bi fur et à mesure na loolu di am day dem ba benn instant doo mën a gàddu ñëpp parce que c'est des centaines des centaines sont atteints de ces maladies là maladie de peau xam nga en tant que man du ma médecin mais loolu am naa si njàngat bi ci topp yow gis nga canal yaa gis sa bopp y a trop de déchets déchets toxiques déchets chimiques y en a trop mënuma koo wax c'est trop parce que boo xoolee géej gi yëpp loolu la loolu la fees mbalit en pagaille yow gisal nga ko sa bopp gaal yi bu ñuy tëmb moo yi gis nga ko dañuy am problème seen poxataanu tànk yi day am ay feebar ay affaire yu dul jeex ñoom sax dañu la koy rusa woon dégg nga parce que tellement ko géej gi dafa salter salté salté tellement parce que début débuté wul fii jëlee ko li jëlee ko ba caaro yi Caaroy yi Azur ba jëm nii c'est la baie lépp luy débarquer wu luy mbalit fi la jëm ci ci an la jëm ci fi an plage kon lolu bëgg na autorité jël ci ay matuwa yu mat sëkk surtout surtout les autorités compétents waaw bëgg na ñu jël ci ay matuwa yu mat sëkk surtout les autorités compétents ma répéter ko une fois bëgg na ñu ñëw xolal seen bop bee an gis ko ba paré dafa bëri tam yenen amna lenen lu fi xew tamit lo xam muy quai quai de pêche bi quai de pêche bi ñu wax quai de débarquement bi dañ ko tejon déplacer ñi débarquer muy oto yeeg auto marier yek pirogue de débarquement yek yep ñu né dañuy defar une quai moderne quai moderne boko déggé moy quai bu méngoog jamono alors que c'est pas ce qui s'est passé maquette bi ñu wanoon c'est pas la bonne parce que biñ ñu gis nañ lañ fa tabax lañ fa tabax dinañ leen ko wan ci vidéo yi après mom dinañ leen ko wan lañ fa tabax maar day tali ken xamuko société la c'est une usine amul quai mais ñom mais ñoom avant ñuy ñëw di tabax ñëw nañ ñu wax ak yeen ne leen carrément fii dañ ko bëgg a def kee mais ban erreur ngeen def ñu tabax ko ba pare te li leen waxoon loolu amu ci. mais ay nit bu ñu ñëwee def euh, mbubboo mbubboo état bi defar seen euh, maquette ñëw présente ñu ko def ay réunion wane ni quai moderne lañ fi bëgg a tabax quai bu méngoog jamono bu mucc ayub boo xam ne dina am euh, quai de débarquement bo xam dina am auto yi dinañ mëna garer une place de 200 places à 100 places à 150 places yo xamni ni ci auto yi diggante départ ci auto yu mag ak auto yu ndaw yi ñu mënd di jël jën bi diko génné fi fii yi di mëna débarquer en toute sécurité dina am lampe dina am lépp il y aura même des logements dégg nga dañ koy tabax tabaxu étage bo xamni day logement logement de service de pêche beeg yeneen yëpp ci kaw lay nekk loolu yëpp ñu wax ko ñun ñu jangat ko ne loolu lu baax la dégg nga mooy régime bi fi nekkoon la régime sort bi dem léegi nag ñu ñëw constaté ne ñuy tabax enture ko cerclé ko doo xam ni ñuy liggéey lan la nañu jàpp ni kee bi la ñu liggéey ba tey parce que teg nañ seen maquette teg lépp loolu la ñuy foog alors que c'était pas ça bi ñu paree nii nii nii ba laawi ko génne ko ci lañu xam ne lii du lii du quai du quai moderne du quai de pêche lii kay usine la boo xam ne xëy na am na glace ci usine glace ci am na ay chambre froide yoo xam ne ñoom xëy na usine bi boo boo jëndee jën ci la koy denc congelé ko wala mu seet nu mu def c'est pas daal lu ñu bëgg wax mooy du quai de pêche bu moderne c'est foo archi foo la loolu waaw. léegi loolu man li ma ci métti lu tuuti mooy hmm, déplacement bi déplacé quai bi indi ko ci terrain bi nga xamante ne fa la terrain endroit euh, doon entraîné léegi perte nañ terrain bi équipe bi moom gëmatuma ñu jot ci terrain bi en même temps tamit quai bi lañ ci waxoon.

nga dik ko fa ay dara luy wane ni day avancer loo dundam alors que c'était faux loolu mën naa ne haute trahison la c'est la pire des choses waaw lu ñu mënta accepter la ñun waa commune de Hann bel waaw loolu daal am naa ci njàngat boobu ba pare canalisation yii ñu jóg ci parce que pollution bi ñu maa ko ma ma dellu bamtuwaat ko mi ngi indi ay feebar yu doy waar ci dëkk bi feebar yu doy waay suñu doom dañ ciy sangu suñuy jarbaat suñuy rakk suñuy papa ñëpp a ngi fi vraiment di atteindre feebar yoo xam ne ñun xamuñu feebar fu muy jógee ay feebaru po la karaw lu ne dañu am problème boobu quoi souci boobu nag moo ma gën a inquiété ma bëgg nag autorité yi jël ci ay matuwaay yu mat sëkk sëkk sëkk daal. man daal loolu mooy sama njàngat. est-ce que tamit population de Hann Bel-Air tamit amuñu tamit benn problème mu euh, euh, euh, pollution ci air bi parce que boo xoolee déchets yi déchets yi nga xamante ne dañ koy tuur ci géej gi ñu bëri dañuy am problème mu géej gi. mooy li ma wax rek xeetu feebar bu ne ngay gis fii. Hmm. te li ko indi mooy lii foo dem ñun la yéen fi ngeen nekk dafa am pollution fi ngeen di sangoo. ah dermatologue yi vraiment dañuy wax né yeen mais yéen fi ngeen nek xanaa da ngeen ndox mi ngeen sangoo baxul ak affaire yoy alors que on travaille ça on travaille dans l'eau de la mer ñun ci geej gi la ñuy dañ ciy dugg di génn ñi dañuy def débarquement mo le dañuy dem geej suñuy dom ci lañuy ñuy sangu vraiment ya lepp mënuñu ko wax dal ya di n'importe quoi ici légui na ma bëgg gaay yi bàyyi ci xel bu baaxa baax jóg ci lool canalisation ñu leen wan ni mo fi nekk am na yo xamni xam ne wuñu ko mënuñu ko wané parce que dafa sore bi ñuy def affaire bi ñu yam ci canalisation yu ëpp solo ma bëgg na état bi jóg ci gis nga ko ben ben bon canal 6 bi ñuy wax ni gis nga ko ni kaam démé dafa dem ba toj te auto yi fa lañuy jaar ci kawam dem ay pax def lépp légui nak euh, ma bëgg bu joggé ci lool tamit ñu ñëw tamit ci plage bi mais ça se voit que ne légui di dess ci tefes gi pour ñuy def plage bi pour football pour euh, épanouir c'est à 40 mètres alors qu'on avait plus de 400 mètres

domaine maritime man xaw ma lu muy liggéey. d'accord mais tamit am na tamit benn problème bu am mooy léegi mool yi dañuy aj seen gaal yi ci kaw tefes bi. waaw gis nga terrain bi ñu jaarale foofu noonu gaal maanaam espace bi nga xamante ne moom moo am ci plage yi gaal yi ñuy jël di ko aj ci kaw parce que bu njëkkoon fi ñu passé nii. terrain vide la woon est que loolu tamit wàññiwul terrain bi. terrain bu baax a baax. loolu si ci benn côté bi. wàññi na terrain bi parce que côté bi dañ ko partagé. fi gaal yi daan aju. en général dañ fa daan aju pour liggéey travail bu ñu waaj màggatee ñu aj leen foofu defaraat leen ba ñu baax ñu du tëmbalaat leen kon occupation c'était pas une occupation permanente mais léegi nag occupation bi dafa dafa changé léegi dañuy gis am xom day am gaalam pare ñëw sànni ko foofu taf ci à vendre wala mu yàqu mu abandonné ko foofu loolu tam war nañ ci jël ay matuwaay waaw maa ngi ci interpréter monsieur le maire mu jël ci ay matuwaay benn parce que demoon nañ ba interdire ko fi aj sa gaal ku sa gaal yàqu da yaa xam na nga koy seet si géej gi wala nga seet noo def dégg nga bi ci topp di réparation bateau yi moom day jël place bu dul jeex waaw hôtellerie yi ñi créé fi tamit day jël ay plage place place bu dul jeex mais vraiment affaire yi man dal war naa maa ngi woote wàllu ñu ñëw wàllu ñu fii surtout nag kër yi avancé nii kër yi li ñu avancé c'est trop même ba ci hôtel bii ma jàkkaarloo li mu avancé c'est trop jël nañ plus de 100 mètres de la domaine maritime li ñuy bañ ci corniche bi fële di ko bañ ci yeneen yeneen yeneen géej yi moom la ñuy bañ fii ñun commune Hann bel fii parce que géej gi demoon nañ ba ne am na projet bu génn c'était à huit milliards ñu ne yokku nañ ko c'est devenu cinquante deux milliards jusqu'à présent dara gisuñu dara lu restauré wu fii lu bees dara ba pare kër yi ñu ngi avancé dañuy teg ay fleur tabax teg fleur tabax mais ba ba kañ fan lañ jëm. problème de baie de Hann bu fi jaar indi na fi benn projet pour baie mais xaw ma dadul xaw ma boobu ba Place bi ci mon moi parce que place bi na déchet trop trop trop trop ça. problème bi la mais bébé, bi moom ce a taxaw la dal ngay wax mais la xamal projet disponible le mais kenn dara la andal, bo bëggé Si dëgg autorité yi fi mos a yi fi je parle pas de cette de jamono juñ toll

parce que niñ avons ko niñ ko niñ ko niñ ko niñ ko canalisation niñ ko ci ay y a trop trop trop trop de déchets mhm. waaw légui na man gouvernement bi particulièrement monsieur le premier ministre Ousmane Sonko mu ñëw doxon def fi ab doxantu am tour tour soucis poser ay questions boobaa nit ñi dinañ ko jox dinañ ko jox lépp lu mu bëgg a xam wax ko ay fu mu war a jaar mais li ma gis nii vraiment jéggi na dayoo te il est temps nag ñu dénoncé ko man dama jël sama initiative dénoncé ko parce que ci commune bi laay dund gis li population bi di dund gis maladies yim leen di apporter gis ni ñuy agressé domaine maritime bi ci wàllu habitat ci wàllu dépositoire ay bagages yu dul jeex ay pirogues abandonnées y' a tas de choses. mais loolu tamit est ce que maire bi tamit euh, amu ci part de responsabilité parce que maire lu bon bon waroon na mën a jël ay jeunes yoo xamante ne dañuy balay bee bi chaque weer mu fay leen xanaa loolu minimum minimum loolu maire bi waroon na ko quoi. bon je crois bien parce que loolu man jaaxal na ma tamit quoi comme ni nga ko waxee noonu parce que vu que la commune de Hann Bel-Air bokk na ci communes yi gën riche il est le deuxième non elle est le deuxième de la à part Plateau Mon la deuxième commune bi nga xam te gis nañ tamit na xam tamit du ay compétence am tam dañ ko ci wax amna ah, mais bale commune, commune mom, balé ko mom bo ci xaar état tamit commune est fay a waaw commune bari jël ay ay ñuy bale mu leen fay mais loolu mom non war ko parce que bee bi fii ba bee bi commune de belair ci plage même même chaque jour une fois dans la semaine war nañ ko nettoyer ba mu set jël ay camion ñu tuuri mbalit mi parce que mbalit mi moom jógewul fii li ci ëpp jógewul fii li ci ëpp ça vient de côté bi yëpp caaroy azur jëm ni caaroy ba ci fii parce que fii mooy bee bi hmm. mi buy ñëw ndox mi ndaw mi geej ni mi ni mi ñëwé ngelaw li fi lay indi affaire yi. Hmm. légui nak loolu fokk naa ne monsieur le maire bu gisee lii may wax ni dina ci jël ay matuwaayam lim ci mën dina ko ci def ba pare bu ci mënul dara tam dina interpeller les les autorités compétents ñu ñëw wax ci loolu. man loolu laa gis. waaw vraiment di sant kii nu tati Capa TV Capa TV hmm. ci seen matuwaay ñi ngi wane ne ay citoyens lañ. Hmm. ay patriotes lañ. di leen ñaanal lii ñu yóotu yàlla na leen ko yàlla jox te mu doon seen njiglaay ñoo xam fu ñu jëm yàlla na leen ko yàlla yeggale. amiin vraiment kontaan naa ci yéen trop. waa léegi bala ngaa tëj euh, dama bëgg nga def benn appel muy ci pont bi ñu passé sànq parce que yaakaar naa bii mooy sama deuxième vidéo boo xamante ne def naa ko ci pont bi. xam nga nag dañuy xaar pour pour pont bi daanuñu soog ko defar wala boog dañuy xaar oto dugg si ñu soog ko defar léegi nag balaa loolu di am xëy na yow nga def ci appel xëy na buñ la déggee yow dinañ ñëw en tant que maire bi tamit dugal ci loxo waaw loolu de maa ngi ciy interpellé maire bi maire kii Babacar Mbengue di ko wax ne ko monsieur le maire pont bi nga xam ni moo moo yéeg euh, canal bi bi jëm euh, Marinas jëm ISRA dafa toj yàqu te oto yi dañ fay jaar ba tey léegi nag ñu teel la ko yëgal teel a def alerte bi nga mën ci jël say matuwaay parce que sinon rek danger lay indi waaw risque la oto yi dafa jaar te li ci ëpp waa commune de Hann bel ñoo ciy jaar kon yaa njaboote ñu bëgg nga jóg ci jël ci si ay matuwaay loolu daal la bëgg monsieur le maire daal boo jotee boo seetaanee vidéo bi nga jël ci ay matuwaay leneen loo mën tamit ci commune bi ci wàllu pollution bi loo mën ci commune bi ci wàllu kër yi avancé habitat yii avancé nii te xam naa ni kenn joxu leen terrain yi ñuy avancé nii jàpp naa ni war nga ci jël ay matuwaay wala bok nga wat loolu ba xol nan la tëddee waaw luñ ci meuna a dal nga saafaraal ñuko ko la koy ñaan waaw. waaw kon sa dernier mot nga defé ñu tàggatoo. sama dernier mot moy ma ngi sante wa commune Hann beler ci sen euh, muñ ak ci sen yaatu deun ak masla gi ñi def ba nga xamni amuñu ben problème fi parce que ñom amna ñu leen metti chaque jour ñu interpeller ma wax mako wax ko ñeneen di nuyu de passage sama

dama ko def en tant que un bon citoyen ma bëgg nak euh, ku mën def de même nga def ko. waaw parce que amuñu fenn fudul yaraax duñu xéxal fenn fudul yaraax waaw parce que nenañ bay sa weewu tank lool la non la laa waaw je suis pour tout le Sénégal mais bay sa weewu tank lañ wax la commune de Hann Bel-Air moo ma ñor motax ma di wo autorité yépp compétent yi ñu jóg ci li waaw. waaw bu ko defee Alioune Badara ñu ngi lay gërëm di la sant si euh, sa temps bi ñu may pour ñu def euh, interview bi bu ko defee nag euh, ñu ngi leen nuyu di leen gërëm di leen jox rendez-vous beneen yoon ok merci.